atibaa'i alquluubi wa usaati al afida mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di jéggalu ci fan yi dañu nekk ci tukki eh, moo tax silsila bi nga xam ne benn mbokkum waxaa bi mi ngi ko doon jéem ci jéema Mm. raddu walla du raddu sax ndax moom dajjiwu ca dara day laaj waaye laaj boo xam ne inkaar xeyru mubashir la maanaam nangam ji gëw ko dal waaye ci système mu laaj la koy jaare <clears throat> loolu nag ñàkk wóolu sa bopp mu ngi ci biir ndax su fekkee nangam gëmuma ko moom damay ñëw indi lay yi wane ne du nii jërul sax ma ko fi jóor di wax ne maa ngi ciy laaj ay lay ndax ko booba soo gisul ku la joxi lay itam mbir ma daanoogul mbir ma la koy daaneel mooy nga indi lu koy daane mbokkum waxaa bi moom nag xam naa day jëngoo ko am am lu fit ak a jàngantu moo tax mu toll ci yu suufe yooyu nga xam ne yellul woon sax ñuy yëkkati ay kàddu di ko teg ci ay kàddoom waaye day ay mbir yoo xam ne dañ cey jaare rekk du moom moo ñuy tax a jóg waaye ñu jaare ca leeral ca doxalinu wahabiyuuna yi ndax saa suñ waxee seen yoon wiñ leen xame dafay gën a leer Eh, ñetti fan yi nag fan bu nekk am na lum ci wàcce waaye dañoo amoon yéene dënniirlu ko eh, ba delluwaat ba delluwaat tukki bi jeex ñu delluwaat ba toog ba ibbiwaat téere fotowaat wàccewaat leeralaat luy laaj luy dajji caaxaanam yi nga xam ne moom la nekkee ak i sëriñam waaye affaire bi nag day bëgg ëppi loxo maanaam day bëgg a jéggi dayoo ci biir tukki bi nag insha allahu lañuy tàmbali tontu bi di ko tàmbalee nag ci lu mujje def démb te loola dafa wone ñàkk maanduk wahaabi yuuna yi ak liñ leen xame te sub kii waxoon ko mooy yaraw na alkadiba li nusrati madhabihim loolu sub kii moo ko wax te loola dafa dëggu ci ñoom te lii may bëgg a wàcce leeral na dëggi dëggi wax jooju ni mu dëggoo ci ñoom mu ñu demee ci طبقات الشافعية الكبرى الإمام العالم العلامة تاج الدين عبد الوهاب السبكي moom moo ko taalif ci jukki bu njëkk ba ñu demee ci page deux cent cinquante quatre loolu mooy ci taxqiqu Moustapha Abdul Qadir Ahmed Atta dafa wax ci biir ci wàllu mubtadi' ndax dañuy jël ay waxam su jarxee wala cu ayibalee ak su nit ndax dees na jël waxam walla déet ci biir nag mu xam le ne mubtadi ay niti bidaa yi dafa am mbir moo xam ne dañ koo siiwe niti bidaa foo ko fekk day sosal nit day sosal nit waaye niti bidaa yooyu nga xam ne dañuy sosal ay nit nag dafa am ñu ci raw te ñi ci raw mooy ñi nga xam ne ñoom la tuddee al mujassima al mujassima nag li muy tekki mooy ñi nga xam ne ñooy def yàlla ab jëmm ju taxaw ami saxalal ko ay loxo comme niñ ko waxe woon waaye saxalal ko ay dawak xeloog jaaxaan tegalay tànk ak dégg nga di wëndeelu ci suuf seeg eh, ak yeneeni melokaan ak di diis am poids yooyu yëpp ay gis mbiri jismiya la mbiri doon mu la eh, ñooñu nag mooy wahaabi yu ne yi ndax yii ma wax ci ay melokaan yëpp ñoom saxal nañ ko yàlla ci seeni tiire ca usulul imaan bu ibn abdil wahab saxalal na fa yàlla di diis te loolu kat ma ngi ko jëlee ca sëriñam ba ibnu taymiya ibnu taymiya dëgëral ko gëm ko moom mu gëm ko ca gannaaw ibnu taymiya ibnul qayim itam di seen sëriñ ma ngay saxalal lu mel noona yàlla ibnu usaymin ma ngay saxalal lu mel noona yàlla ñooñu nag la tuddee ay mujassima léegi nag Asubki wax ne nit yi bidaa yi ñëpp nag dañuy sosal waaye nag laa siyama al mujassima maanaam rawatina nag ñi nga xam ne ñoom ñooy al mujassima ñooñu nag am nañ ziyaadatun la tuujadu fi gayrihim maanaam yokkute goo xam ne amul ci ñeneen ñi ñëpp dañuy sosalaate maanaam nit yi bidaa yëpp ay sosalaate waaye nag ñi nga xam ne ñooy mujjasiba yi ñooñu nag am nañ yokkute goo xam ne ndollentu goo xam ne amul ci ñeneen ñi ñoom ñoo ca raw wa huwa annahum yarawna alkadiba li nusrati madhabihim loolu mooy lan moo di ne ñoom dañuy jàpp ne di sosal nit ngir dooleel yow miy sos nga mën caa dooleele la nga jàpp daaneel ca yeneen ñeneen ña jàpp aw feneen nga mën leen a daaneel te daaneel googu tege ci ay sos loola ñoom gis nañ ne loola dara nekku ci wa yu ala man yuxaalifuhum bi alcaqidati bima yasuuhu fi nafsihi wa maalihi bilkadibi tayidan li ictiqaadihim mu ne gis nañ ne di seedeel koo xam ne danga ngaa moom ci ak aqida nga koy seedeel loo xam ne maanaam da koy naqari moo xam danga koy seedeel ci jëmmam walla nga seedeel ko ci ay moomeelam waaye lépp nga teg ko ci ay sos ak wax yu dul dëgg ngir dëgërale ci sa pas-pas maanaam wahabiya day dëgëral pas-pasam dëgër pas-pas bi fan la koy jaare day sosal keneen day seedeel keneen ku gëm leneen da koy seedeel lu bon comme li ñuy bëgg a wax nii mu ne nag lu nit kooka gën a foor ka ñuy sosal lu mu gën a foor gën a ay ci nim leen di raddoo ci noona la gën a ñoom itam jéem a jege yàlla ci di fenal kooka mu ne nit ñu mel noona nag seen wax kenn waru koo jëfandikoo kenn waru ko bàyyi sax xel sub kii loolu mu wax nag loolu mu wax dafa dëggu ci ay mubtadi yu bari waaye wahaabiyun yi nga xam ne ñooy xawaarijul asr ñoom ci ñoom la wax ji gën a dëggu wax nag wax ji nag du alxuraan waaye wax la koy may dëgg mooy nga gis lay tegtale dëggu wax ja rek te lépp li nga xam ne subki wax na ko ci phrase bi amul lenn loo xam ne wahaabi yu ni jikkoowuñ noonu foo leen fekk même bindkat ya dañuy bind sosal nit loo xam ne ñoom rek ñoo ko mas a wax am na ku bind téere tuddee ko taqdisul ashxaas fil fikri suufi muy docteur Almet Lo e, mu wax ci ne waxdatul wujud mooy li nga xam ne ci lañ fondé ci lañ taxawale tarixa tijaan muy benn wax bu dul dëgg mu waxaat ci biir téeréem ne Cheikh Tijaan bi mu nekkee Tilimsaan bi mu nekkee Algérie boroom xam-xam ya ñoo rafetluwul am njàngaleem moo tax ñu dàq ko foofa mu génn dem Fass muy beneen wax boo xam ne tamit du dëgg loola kan la ko def da koo def ci ko xam daa wuuteeg moom rek ngir lam ngir dëgëral pasa pas pas pasam mais daaneel ñeneen ñi mu waxaat beneen ne Ghazali yi gëmul dara maanaam Ghazali yi mun kenn mënu koo jàpp ci benn gëm-gëm ku nekk gëm na la yàgg la nga yor pour mën a maanaam genre naa fekk daal mën a jàmmoog ñëpp muy beneen wax boo xam ne du dëgg mënoon naa ko topp nag di compter ay wax yu dul dëgg yu mu waxal ay nit ay boroomi xam-xam yoo xam ne ñoom séenu leen seenu sax seen pënt waaye nag comme dafa wuuteeg ñoom mu leen di sosal ngir dëgëral pas-pasam loola nag yaatu na ci gaa yi ñun ñii rek nga xam ne ñooy gone yi ñoo nekk ci suufu ndëggu dàllu pepp suufu mag ñi des fois nga gis ku la susal ngir dooleel pas-pasam fois sax ñu ne la yow soskat nga yow maanaam masalan yow Modou Kama da ngay sos da ngay sos googu kët dañ la koy wax pour dooleel seen dañ lay fenal noonu pour dooleel seen pas-pas waaye kenn mënu laa wax ne yaa sos lii wax jii nga wax nii amul kenn mënu la ko wax mbokkum waxaat yi mii nag nga xam gone gi démb dafa wax ci Cheikh Omar dara ak Cheikh Omar maqaama ba mu yor ci xam-xam yor ko ci wilaaye yor ko ca wàllu yàlla yor ko ca liggéey lislaam amul respect ci moom almet loo la gën a respecté fuuf téeméeri junni yoon ci Cheikh Omarul Fuuti fuuf boo waxoon ci almet loo day mer boo waxoon ci Cheikh Omar lu jaaduwul yoonam du ci ne bal moom sax mooy wax ci Cheikh Omar lu jaadoo di mooy dem ca téere Cheikh Omar Cheikh Omar wax dara mu dëpp affaire bi waxee ko safaan daati ñëw daal ne Cheikhu moo nett lii xam ne daa mel ne moom maanaam ay bandi kolobaan yooyu la ko teg ñu déglu lim wax ak nim ko waxee ci Cheikh Omar ni mu ñàkkee teggin ni mu ñàkkee xorma te kët ku fonk almet loola nag almet mi nga xam ne day sàcc bax kenn mënu ko weddi loolu almet mi nga xam ne mën naa konte man fukki wax yoo xam ne yu wér la ci téere bi dara du ci dëgg bu ma nee dara du ci dëgg nag amul benn wahaabi bu ko mën a tontu bu mën a làyyi loolu amul du moom mi may moom almet ci bopp du keneen ñu déglu gone gi li mu wax ci xàqu Cheikh Omar ak téeréem boobu di Rimah bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal borom bi tabaraka wa taala defal leen tawfiq dellu ci waat nañ suñu silsila eh, bi nga xamante si ni moom lañ doon amal eh, di ko def ci téere yi nga xamante si ni waroon xam-xam ab tarixat ci tijaniya dañ ko bind bu ñu ñëwee dañ cay toxal ay mbir daa daa ci laajte ay preuve ci alquran sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saa yu ko jot gi maye tey nag ñu ñëw ci téere bi di rimaax ci ko taalif mooy amar bnu shahid alfuuti rahimahullahu taala bu ngeen demee ci alfasl sadis ci bunt bi nga xamante si nii ci fas bi nga xamante si nii mooy fas juróom benneel bi tam si wattandikoloo ñi inkaar ñi wooye ay awliya ci ñoom an inkaari ala waxidin min salatin al awliya bu ngeen demee ci page deux cent soixante-sept indi na fa nettali bu bu xorom wa xorom wa nettali bi ñu ngi koy jëlee ci téere bi ñuy wax euh, alxuxud alxuxudul euh, muhammadiya al-Sha'rani mu ne anna Cheikh Siraj Uddin walid Cheikh al-Islam Salih Balqini marra yawman ala baabi qawmin fa wajada shu'matan hunaak fa qaala ma haadihi shu'ma fa qaala lahu shakhsun min awliyaa min awliyaa Illaahi ta'aalaa yabiihu al-xasiisa fa qaala law xaraja addajaalu law xaraja addajaalu ayna isin fi misri la actaqiduhu min siddati jaxlihim kayfa yakunu saxsun assaasan min awliyaa illahi taala innama huwa min alaraafis fa talaba cheikhu jamia ma ma huwa atta hatta alfatiha mu ne jëre nañ ci téer bi ñuy wax al uhud al muhammadiya ki ko taalif di Chaaraani mu ne ku ñuy wax Cheikh Sirajuddin nekk waajuru ku ñuy wax cheikhul islam Saalih Balqini nee na benn bis dafa romb benn buntu aw nit fekk nit yu bari nekk fa di mu am daal ambition mm, mu am kii daal maanaam mu am mu am mu am mu am raj raj bu am sa buntu ba nee na mu daal di euh, laajte daan ne lan moo waral euh, kii bi embouteillage bi lan moo ko waral ah ñu ne ko benn waay boo xamante si nii dafa nekk dafa bokk ci awliyaullah kooku moo fi nekk di jaay cannabis li ñuy wax crack maanaam di jaay yàmba <laughs> euh, mu daal di wax ne ah euh, dajjaal de bu génnoon ci misr nee na ñi daal di koy gëm jamono jooju bu dajjaal génnoon ci misr ñi gëm ko ngir réer gun réer daal ne naka lay nekkee wali min awliya illahi taala waa joo xamante ni dafay jaay crack dafay jaay cannabis yàmba naka lay bokke ci awliyaullah waaye nag ci biir mbokk mooy innama huwa min al arafis arafis benn xeet la boo xamante ni bu ñu xamoon ci foofu la ci xaahira ci ak réer wala yu demee noonu mu ne ci ñun la bokk nee na bi waxee loolu nee na cheikh bi xamatul dara léppam maanaam <laughs> wala yu ba yóbbu na lépp <laughs> lépp lu mu xamoon rek yaay dégg dem na xatal fatiha mokkalatu ko lii nag moom la ñuy laaj dalil ci alquran sunna yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam borom bi tabaraka wa taala kat dañoo digaloon ñi inkaar lépp loo xam ne dañ koo gis lu bon kon naka lañuy ñuy inkaare koo xamante si nii dafay dafa def lu bon borom bi tabaraka wa lépp lu ñu xamoon mu daal di te moom moo ñu santoon ñi koo xamante si nii dafay def lu bon noppi sant ñi ñuy digal lu baax kon cheikh bi ni mu waxee ni daan ne raisonnement bi mu joxe ne mun nit ki jaay crack di jaay cannabis kooku mënut a nekk wali parce que ci ak mooy yàlla borom bi tabaraka wa taala la nekk kon noonu mënut a nekk wali kon ñuy réer gun réer moo tax ñuy jàppe ko wali nee na ci loolu wax jooju mu wax loolu rek nee na lépp loo xamante si ni xamoon na ko rek ci la ci la ci la dem loolu nag mu nekk euh, nekkali bu doy waar boo xamante si ni bu xoromu la waaye tamit am na lu muy jàngat lu baree bari mooy que ne léeg-léeg da ngay dégg ci ñi asono yi di wax ne waaw wali bi mën naa nëbbatoo euh, naan sàngara mën na nëbbatoo yeneen yu bëree bëri waaw defee yow dañ lay wax naan bul daal kon yooyu yëpp dañ ciy laaj firnde ci alquran ak sunna yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, subhanaka ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kon boo xoolee rek euh, li nga xam ne moom la gone gi wax da ngay gis ne moom ci boppam day ko war a jàngal ij ij boole maxaarijul xuruuf yu jag man de soxla naa ko ca daara ja mu ñëw ma jàngal ko loolu ndax ab texte bu ko liiree yow da ngay jëli mais yow mënoo comprendre c'est-à-dire jëli mooy danga nga naan amaana xëy na lii la bëgg a wax xëy na nangam boo li boo tiimul texte bi mënoo xam ban baat lay wax ndax bu ne la fa wajada suxmatan doo wax doo xam suxmatan lu muy firi ndax suxmatan amul ci arab zaxma moo am ci arab bu ne fii misri fii misri da ngay jàpp ne misri kon leneen la lu dul misra ga nga xam ne moom lañ xam su ne yebiihu yebiihu yebihul xashish doo doo xam lu muy wax in innama huwa min al araafiis doo xam lu muy wax omar ibnu shaib doo xam lu muy wax maanaam doo xam tur yi doo ko da da réer lépp lay réer parce que lan ak gone la goo xam ne jàngu dara mooy taxaw di kontar ànd ak loolu nag mu teg ci ñeme yàlla gu toll ne fenal Cheikh Omar fen gi mooy lan mooy seexu wax dara nga jël wax boobu bu dee fukk nga nettali ñett yi daan ne lii mooy xissa bi xissa bi daal ñett yi la nga xam ne fukk yi moom juróom-ñeent yëpp da ko koo sànni yow lan laay déggee man su boobaa suñ bëggee dégg li mu bëgg a wax ci seexu mar ak téereem bi mooy Cheikh mar moom xàmmewul ay wilaya ak yooyu xàmmewu ko ndax ab jaaykatu yàmba xaqan kooku du du du ab du ab euh, nu du ab waliyu lu dul ne am na lu laxasu ci xisa bi loo xam ne waa ji waxu ko léegi nag kon danga ngaa réeral nit ñi ci Cheikh Omar li wax maanaam cheikhu daf ne dafa nettali am xisa bu gudd toppoo xisa bi nga laal ñetti bayit yi ci njëkk wala ñetti wax yi njëkk daan ne xisa bi nii la deme daat koy ree daan ne ma nettali bu xoromu ki ko nettali mooy Omar nga xam ne comme benn waay bu nekk fii ak li mu liggéey ci diini ji moom Cheikh Omar nga xam ne amul benn nit ci Sénégal ku naan ko Omar déedéet Cheikhu Omar la ñuy wax Cheikhu Omar amul kenn ku koy sàllalu wahabi képp wahabi bu jàngul amul maxaarij ferul ij mënul lire texte moom Omar lay wax te bu wax Ahmed du wax Ahmed de moom cheikhana docteur lay wax bu dee cheikh Omar Omar Ibn Saïd yëpp ay xeeti ñàkk teggi la yoo xam ne maanaam ñoom duñ ci dañ te kët wali yu lu mu gën a féete kaw borom xam-xam lu mu liggéey ci diine ji te bokkoo ci seen yoonu kéeféer googu yoonu réer googu ñoom dañ naan la daal yow daal maanaam ku doye di nga dañ lay doye ci seen wax Omar Ibn Saïd moo ko moo ko taalif nga xam ne ku xamul rimaax ci boppam mënoo xam ki muy wax kan la pour yow benn booy bu bu jàdd koñ bee moo doon taalif affaire bi te fekk cheikh alxaaji omar al fuuti moom moo ko taalif mu wone ci ne al alxaaji omar moom mooy nettali waliyu buy naa buy euh, boo xam ne ab waliyu la te jaaykatu yàmbaa la léegi ñun lan lañuy comprendre kon ci xisa bi ñun ñi nga xam ne gisuñu téere bi xamuñu xissa bi defuñu dara ñun ñu déglu ko rek déglu booy bi dañ naan non kon Cheikh daal wali kon day day naan loolu gars yi daal day caaxaan rek nangam ak nangam tàmbale nag yaa ngi ŋàññulu nit te lam wax lu wér a wér la boo toppoon xissa bi képp lu wér la kon léegi laaj bi mooy lan mooy est-ce que booy bi xissa bi mu nettali est-ce que liir na ko liir na xissa bi ba mu jeex bu ko liirul ba mu jeex naa feq la ndax yaa ngi nettali loo xamul bu fekkee ne nag da ko liir ba mu jeex ba xam li mu wax ba pare daati nettali safaanu loola fenkat nga ñaar yi nag benn nga nekk naa feq wala nga nekk fenkat léegi nag ñu door a ñëw nag ci Cheikh Omar li mu wax ci téere bi ndax Cheikh Omar dafa nettali sa boo xam ne Abdul Wahab Shaaraani moo ko nettali ci al uhudul muhammadiya léegi téere yooyu yëpp lañuy indi dañuy dem ci al uhudul indi nettali ba ñëw ci biir rimaax indi nettali bi bu ñu demee ci téere bi nga xam ne fa la Cheikh Omar jëlee ba nañ fa liir nettali ba te mooy lawaaqixul anwaar al qudusiya fi bayaani al uhudi al muhammadiya dañuy wax uhudul muhammadiya fekk téere bi ni tudd mooy lawaaqixul anwaar al qudusiya fi bayaani al-uhud al-muhammadiyya abul mawaahib abdul wahab ahmad ibn ali ash-sha'rani moom moo ko taalif boo demee ci lawaaqixul anwaar nag bii ma yor te mooy tasxiixu muhammad abdusalaam ibrahim boo ca demee da nga fekk ci page cent quatre-vingt-un cent quatre-vingt-deux muy nettali xisa bi mu ne wa xukiya lii nettil nañ ma wala boog waxakaa lii nettali na ma kan moo ma nettali al al cheikh al islam al muhaddis aminu diin imaamu jaamici al xumri wala xamri bi masr an cheikh al islam salih al bulqini mu ne ku ñuy wax eh, aminu diin di ab muhaddis moo ma nettali ca Égypte mu ne jële na ci cheikhul islam saalih al bulqini saalih al bulqini ne anna walidahu ne sëriñam wala boog baayam a cheikh siraaju diin al bulqini marra yawman marra bi baabi luuq fa wajada hunaka zahmatan bunt mu gis fa ab raj rajloo foofa nit ñi ku nekk di riir bëgg a seetaan lu xew fa qaala ma hadihi zahmatu siraaju diin al bulqini ponkalum borom xam-xam la de mu ne lan zahma bi lan la raj rajloo bi lan la fa qaalu lahu ñu ne ko shaxsun min awliyaa illahi benn waaye ci waliyu yàlla yi moo toog fii yabiul xashiisha di jaay yàmba xam nga kon bul xiin siraaju din moom gisagul waa ji lii mu wax rek même su fekkoon ne kuy jaay la tooñ na ko ndax gisagul bayyi na bu koy wax mu war a wax dara waaye loolu taxuñoo jug tey fa qaala siraaju diin bul xiini daal ne law xaraja dajaalu xiina idin fii misra kenn wax fii misri fii misra bu dajjaal génnoon ci ci ci égypte gii laataqaduuhu ñu ñu ñu gëm ko am ñu ko fas gëm ko def ko seen sëriñ min shiddati jahlihim ci seen réer gu metti rek kayfa yakunu shaxsun xachaachun min awliyaa illah waay toxkatu bi yàmba nan lay nekkee ci nit yàlla yi te loolu li wax lu wér la waaw ah, wali yu mooy ku topp yàlla kuy mooy yàlla loolu wali yu seytaane la daan innama huwa min xaraafiish mu ne kii ci xaraafiish yi la bokk xaraafiish ak kilig la goo xam ne ñoom ci mbedd bi rek dañ daan dëkk maanaam nit ñu ay nit ñu sànq daal ñu tekkiwul dara suma waliya suma summa walla mu daal di tourné dem maanaam wax na li muy wax dem na ab boroom xam-xam bu mag bindi téere la mu xamoon lépp ci wax jooju mu wax wax ko ci kooka di jaay yàmba fa suli ba cheikh jamii ma maahu ñu sëlbu ko maanaam nangu jël ci moom lépp li nga xam ne xamoon na ko xatta alfatiha ba ci fatiha fa tanakkarat alayhi axwaaluhu mbiram yi nag daati wëlbatiku changé xamatul dara wa saarat alfatawa taati ilayhi fala yaarifu cheyan ñu koy fat ay fatwa di ñëw ci moom ñu koy laaj te du xam dara ci li war a tontu wa nasiya maa qaalahu fi xaq alxachaas fii nag la waa ji yem booy bi xisa bi est jeex na jeexul de léegi lan moo ci topp moom nag ba mu waxee xamatul lan moo tax xamatul dara fàtte na la mu waxoon dégg fàtte na la mu waxoon ca ka doon jaay yàmbaa foofa dégg nga eh, fa makasa kadalika fi madrasatihi bi xaarati eh, bahauddin salaasata ayam mu toog ci école am boobu fa nga xam ne moom moo fa daan jàngale mu toog fa maanaam ñetti fan affaire bi tëj boppam maanaam amul benn aaya bu mu xamati xamatul benn saar xamatul benn masala dara xamatu ko ak ni mu tolloon ci xam-xam siraaju diinil bulqiini xissa bi lu wér la Sha'raani moo ne diw moomu diw ko nett diw ne baayam nee na fa daxala alayhi faqir faqir rek buñ ko waxee nit sufiyanke yee benn sufiyanke daal di dugg si ci moom fa shaka ilayhi xaalahu mu jàmbat ko ay mbiram fa qaala waa ji daal ne ko haada min alxashaashi alladi ankarta alayhi lii xam nga ci lu mu jaaykatu yàmba booba nga xam ne danga waxoon ci kawam fa inna al fuqaraa ndax gaa yi maanaam sufiyanke yi aji la suuhu hunaaka ñoo ko yóbbu foofu teg ko fa yu tawwi bu naasa noonu lañ ko bindee ca téere ba muy tuubloo nit ñi an aklil xasiis ci lekk ci ci jëfandikoo yàmba maanaam kon ndeke gaa yi ñoom ci xisa bi ni mu demee ndeke gaa yi ñoo ne ko ñoo ne wali yu boobu mu toog fii na fexe ba nit ñi yàmba gi ñuy jëfandikoo na dakk léegi nag ni muy dakke mooy moom ci wilaayam day toog foofa di ko jaay waaye nag fala yaxuduha ahadun min yadihi wa yacuudu ila akliha abadan xatta yamut képp koo xam ne ñëw nga ci moom jënd boobu mooy sa mujjantalu jënd ci àdduna ba ba ngay faatu dootoo jëfandikoo ci yàmba loolu moo taxoon mu toog foofu di ko jaay moom xisa bi noonu la deme dafa dem toog fa waaye mi ngi mel ne benn waay boo xam ne day jaay cigarette waaye nag am na màqaama wala ñaan na yàlla ci lii nga xam ne yor naa ko damaa bëgg ku ma ko jox bu ko toxee bu mu tuxati ci kaw suuf hmm, loolu kay ku ku amoon màqaama jooju kay dem jaayi cigarette moom man su ma ko amoon fii laay génn ku ma gis du ma la jaay sax dama lay may nga tux ko bàyyi tux nag jaare fa bàyyi tux am na ñoo xam ne sa xëy na duñ àgg ci jaay la ay cigarette ak yu mel noonu bis biñ la waxee buñ ŋaangee daan ne bàyyil tux dootoo dootoo tuxati yow maanaam du jaagee da ngay jëfe seen diggale sa ruux sa xaal sa xol la waxal direct mu bàyyi léegi nag moom loolu la fa toogee moom dafa toog pour nit ñi bañatee jëfandikoo yàmba ni niñ ko defee mooy maanaam moo ñaan wala mu am maqaamay xaalam wala nangam wilaayam toll ci bu la ko joxee dootoo ko jëfandikooti ci àdduna dégg nga falaa yaxuduha ahadun min yadihi wa yacuuda ila akliha abadan xatta yamut lii est-ce que booy bi gisoon na lii wala gisu ko liir na ko wala liiru ko waa ji ne ko nag maanaam euh, su sufiyanke boobu ne ko fa arsil istaghfir lahu yaruddu alayka xaalak da dem nga jéggalu ko ndax moom du benn waaye bu yemamaay bu toog foofu di kii de moom dafa ñëw ngir nit ñi bañ a jëfandikoo ci affaire bi léegi niñ koy ñàkk jëfandikoo nag day toog di ko joxe te kum ko jox doo ko jëfandikooti te noonu la mbir ma demee kon nag yow li ko waxoon dal ci kawam ne du waliyu du nàngam loolu moo la dal nii léegi da koy jéggalu ji mu daati yónni yónnee kenn ne boo demee daal nga ne ko Sirajuddin Bulqini daal mi ngi jéggalu ci nàngam ak nàngam lam la waxoon nangam nangam ndax daal moom dañ ko sël bu fi mu toll nii xamoon wax a wax ba pare ba ba waaj a demee ba jub ka doon jaay maanaam waliyu mu ne ko nax nu maanaam waliyu ba dafa séen kañ yónni rek ci saa si daati wax li naxnu alxaraafiisu la naskun awaali duur wala nuraa'i wala nashhad shahadata zuur naq naa bi luqmatin wa xirqatin fi masjidin mahjur man kaana dal xaalu xaaluhu zanbuhu maghfur mu ne nag ñun ñooy xaraafi maanaam dëkkuñu ci fenn ci mbedd bi lañ dëkk waaye nag du ñu ngistal du ñu seede lu dul dëgg benn euh, tibu ceeb doy nañu ak benn yére bu xotteeku ñu dëkk ci jàkka joo xam ne kenn nekkatu fa jàkka juñ juñ gedd la joxe kenn julleetu fa ku xaala mel nii rek même bu amoon bàkkaar yàlla da koy jéggal ne ko nag falaw kunna usaatan nabiu lxasiisa ma aqdarana allahu ala salbi cheikh al su fekkoon ne ñun ay jaaykatu yàmbaa lañu nekk ay moykatu yàlla yàlla du ñu may kàttanu ñu mën a sëlbu ñu mën a nangu xam-xam bi nekk ci biir ki nga xam ne mooy cheikhul islam siraaju diinil bulqiini summa qaala lahu sallim ala cheikhul islam nuyul ma cheikhul islam wa qul lahu wax ko ne ko imal arbaata xiraaf maalif shawa wa arbaat miati raxiif wa taala ijlis indi ne ko na defar ñetti xar mis wi ko ak ñeenti téeméeri eh, mis yi mburu te indi ko te ñëw toog fii ci man affaire bi nag xaw a jafe ci siraaju diine bulqini pour mu nangu li waa ji wax gaa yi nag ne ko nag boo fa demul nag sa xam-xam bi du dikkat de mu dem ba mu demee nag mu ne ko eh, ku ma jaay yàmbaa rek da koy daggal da koy daggal miis mburu jox ko tuuti ci ñeex meeg miis bi mu mu yóbbaale <laughs> loolu xaw a metti ci waa ji nag waaye gaa yi ne ko sëñ bi boo ko deful du nangu de wala yi ne faw faawu nga def loolu ndax ñun tooguñu fi pour caaxaan dañuy liggéey muy def loolu nag ku waa ji jaay yàmbaa rek siraaju diin bulqiin yi <laughs> moom moo moom moo koy jox mburu waliyu bi di ko xool di ree rek ba mu jeex nag ba affaire bi jeex mu daan ne ko léegi dangay dem sa kër siq maanaam ginaar ga nekk ca kaw sa école bi ngay jàngale am na ganaar gu fa nekk ca kaw nga xar ko nga nga rey ko boo reyee ganaar ga xol ba xolub ganaar bi ci bopp ngay lekk boo ko nekkee sa xam-xam yëpp dellu si mu ne ko nag billaahi aleyk naka ngay réy réyloo ci kanamu jullit ñi ci xam-xam boo xam ne maanaam ma nga ci biir xolu ab ginaar kii li mooy doom ji de mu ne baayam bis boobu la bàyyee kontar xaali nit yàlla yi boo gisee ñun la diw daa def nangam loo xam ne e, du noona hmm? léegi nag li nga war a def mooy jéem a def say jàngat lan moo tax waaye tëb rek weddi ku ko def al ko ndax moom gisul waa ji gisul kiñ koy wax xamul dara ci moom dañ ne ko diw daa toog fee di naan sànga di naan rek mu ne waaw kooku ku alko la kooku ku nàngam la kooku ku nàngam la lan moo taxoon mu toog fa buñ la ko waxee ci saa si nga d'accord li tax mu toog fa mooy dafa toog ngir naka lay def ba fexe ba kenn dootul jëfandikoo yàmba masalan loola ni mu koy defee mooy dafay toog di ko jaay te kum ko jaay ci xaalam kum ko jaay dootoo ko jëfandikoo ci maanaam lam lay jaay mooy li nga mujj jëfandikoo ci sa àdduna léegi nag moom bu nettali woon lii est-ce que dana ci samp laaj maanaam bu fekkoon dafa nettali lii est-ce que dina ci samp ab laaj déedéet du ci samp laaj de beneen bi xam nga man damaa dem ci al uhudul muhammadiya ma nga xam ne mooy cosaan la fala Cheikh Omar jële wax ji waaw est-ce Omar moom bi muy indi wax ji ci ci téeréem nii ko Sha'raani indee noonu la ko indi wala dafa yem rek fi nga xam ne foofu la booy bi yem ah léegi nañ xool Cheikh Omar radiyallahu anhu lan la wax ci téere ba